بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين بقي في دجاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu ñi fi daje ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw xam naa nag di beral nuyoo sunu kilifa sunu sëriñ sunu responsable moral ak Cheikh Seydi Mouhamadini Moustapha Sy ñuy ñaan ci barke mag ñi ko yan fa mu jëm yàlla na fa àgg ci jàmm bu àggee bu gestoo ñun ñëpp yàlla na nu gis ñu ngi koy jéggulu ndax mën nañu wax ne bu dee ci wàllu jàngale ak yar ak orienté jaadu woon na ñu bañ koo ñaanate mu génn parce que lim ci jote a def bu ci kenn ku nekk ci ñun jëloon 3 pour cent ya rek man lu bari wante dafa fekk ne léeg-léeg dëkk wéet dëkk rafle dëkk mar ñu dëkk ci dëkk ba sax maraale la yàlla def ci dëkk ba sax maraale ba boo sañoon ka nga am te jàpp ne mën naa fexe ba ñëpp màndiwaat ñëpp suuraat ñëpp dundaat nga indi ko fa loolu rek moo tax bi nu ko ñaanee pour mu ubbi lu sunu jumaa ñu ñaan ko rek mu njàmbaasal mu ci Kaffrine ndax fii kenn da ko moomul mu des bari na ku fi ñëw tey woote fi waxtaan ca la tax nga xam ko ci Seydi Cheikh la jóge ca lu jógee ci Seydi Cheikh rek cëram la te yàlla ko muurloo mhm. ñu ngi nuyu tamit mhm. kilifa yi mu àndal mhm. di sant yi mu àndal ñëw ci voyage bi di ñaan tamit seen diggante ku tedd kii yàlla na sax ba abadan nuyu kilifa yi ñu am ci dëkk bi ca ka ca jiitu ci wàllu administration mooy le préfet Mouhamadou Sall moo toog nii ci wetam tabaarakallaahu waxtaan naa góor gi lu bëri. Mm-hmm. wante rek li liñ ci mën a seede rek. Mm-hmm. mooy ku baax la ci ñun. Mm-hmm. ñun nag ku baax ci ñun rek. mooy ku baax ci Serigne Moustapha. te ku baax ci moom rek ñu jàppee la lañ la war a jàppee ba ba ngay noppee baax ci moom. wante mën nañu seede ne ku baax ci Serigne Moustapha la. waaw même bi ñu koy déposé demande d' bi. dafa ubbi lettre bi rek na ma demal nga tànt ci bureau pour wax la rek ne am na lu mu xam am na lu mu nangu ni tamit le maire de la commune waxoon ne dina ñëw El Hadji Babacar day moom yi ñu ko waxoon yépp def na ko ndax ay barab lañ soxla woon ci moom rek pour njaboot yi dal fa te mu nekk ci responsabilité am mu ni jox naa leen ko jox leen chambre de passageur jox leen chaise ya fa nekk yépp mu ni bisu samedi bi nag dafay tombe ak benn réunion buñ leen woo ci niveau yi ñu bokk ñoom mhm. mu ni wante su fi ñëwee ci diggante bi sax fekk fi góor gi dina ñëw ñu seddali tamit ne la dëkk bi ñi fi nekk yépp di ay kilifa mhm. moo xam kilifa diine lañ aju ci tariqa yi fi nekk wala ci këru diine yi kenn ku nekk tey sa délégation mu ngi fi toog mhm. ba ci ki tok sa ginaaw muy sëñ Modou Mbacke bu sëriñ mustapha Basir barakallahu suñu mbokk yi fi représenté famille El Hadj Ibrahima Niass dañu wax ne pour participer ci jotaay bi yi ñu am ñëpp ci walu matériel bu ngeen ko soxla ñu jox leen ko donte xam nañ ne sax yeen bu ngeen di ñew indalé seen yépp wante pour rek bëgg barkel bu ngeen bëggee ci nak bool ak palaat sax ñu jox leen ko baarakallaahu ñoom it def nañ ci liggéey bu am solo ilimaanu dëkk bi fii ñi am yéene ak ci yow buñ leen bëggoon indi ci yow sax nga jéppi suñu mbokk murid yi surtout ku dégg ne yaa fi ñëw rek mu ñëw fii jënd mbuusu tàngal joxe ñaar dërëmam ne ki fi ñëw nit ñëpp la fi nekkal nekkul fi famille rek loolu moom ñu bari wax nañ ko te ñu fi doon tànt mën nañ ko seede li ci des nag sëriñ bi du gudd ñun li ñu seqal gox bi seq ak ñoom dëkk bi ñu bokk génération la ñu bëggoon rek wax ñaari baat ndax dañu nekk ci dëkk yoo xam ne nii dañu nekk ci dëkk yoo xam ne nii njaboot ji waxuma njabootu daayiri bi wante ñu ngi bokkal génération bokk ak ñoom tund bi dafa mel ni dañu nekk ci benn jaaxle jaaxle ba amuñu repère te ñàkk repère dafay gàllankoor doomu aadama ci dundam ca ku tedd gi di jàngalekatu jàngalekat yi Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane dafa wax ne les jours passent et d'autres viennent avec leur cortège de réalité nous mhm. ni mieux rester sur ses gardes pour ne pas tomber dans le piège mais difficulté bi yëpp sëriñ mi nous ci savoir rester sur ses gardes pour ne pas tomber dans le piège le piège bien sûr mhm. parce que si vous ba un piège la woon mhm. wante léegi ay piège la am na des pièges à caractère politique am des pièges à caractère économique am des pièges à caractère religieux mucc ci piège yooyu nag nit kese mënu ko nit ko am kilifa moo ko mën ñu jàpp nag ne ku bëgg mucc ci piège yooyu wallaay ndeysaan wallaay xabar bi ndeysaan ndeysaan ñu di des arguments ndeysaan c'est bien ndeysaan waa kër yëpp jërëjëf ñu jàpp nag ne ku bëgg mucc ci piège yooyu da ngay wut ku la tette ku la tette nag ka ca gën a wóoru mooy ki Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si wax ne mooy ki lay defar ba nga jekk ci du la lekk mm-hmm. te ñun ñi ñëpp sol mm-hmm. ñu ñuy wooyee al mustarshidin wal mustarshidaat kenn ku nekk ci ñun am na fierté taxaw ci penc mu mënti doon wax ne Serigne Moustapha Sy mooy sama kilifa tegtal la ci ne rek ku jàpp ci mbaggam mu yóbbu la ba nga àgg mu des nag un deuxième défi le deuxième défi mooy ñun ñëpp tamit ñu fexe ba moom mu am fierté ci ku mu joxañ rek ne kii sama njaboot la loolu nag sëriñ bi yaa nañ ci mën a ñaanal yaa nañ ci mën a gindi yaa nañ ci mën a dimbali ndax wax mu sax ala xatar su ko defee nag ñu ngi ñaan rek loo yéene rek yàlla na la ko yàlla mottali foo jëm rek yàlla na nga fa àgg loo bëgg a def rekk yàlla na nga ko def ñun ñi ñëpp kenn ku nekk la ca yéeneem yàlla na ko yàlla sellal mu jëf ko sa xol sedd ci loolu rek mooy suñu yéene ñu baal ñu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم sëñ Moustapha di teewal fi président de la république maître Abdoulaye Wade di la jox wuyoom bi gën a tedd bi gën a sell pour ñu tek ko ci loxo sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si ñu jàllale loko ci njabootu suñu maam elage malik si yépp ma ngi and ak maire bu commune bi ak ñaari adjoint ak commandant brigade bi ak chef de service yi ñu ñëw fekke ci le service waye tam fekke ci suñu bis ndax bi sa délégation ñëwee wax ma ni dangay ngay ñëw ci département bi dañ ci am mbégte ndax li nga fi dox xam nañu tànk yu rekk la da nga ñëw pour ubbi juma ñëw itam pour tenir conférence nemmeeku sa njaboot feddali sa wëllëre seen diggante fàttali leen seen diggante ak yàlla tax itam ñoom ci seen bépp ñu gisante te yooyu yëpp yaakaar naa ni lu am solo la ma sargal di la wax ni man ak membre bureau municipal bi ñi ngi lay wax bismillah yal na la yàlla dalal ci jàmm ak ñi nga àndal ñépp ngeen dox fi seeni tànk dellu ci jàmm fa nga xam ne bi lay fa ngeen jëme woon te lépp loo xam bi lay ngeen ñu yéene yàlla defal ñu ko muy yiw ñu bokk maa ngi eh, kontaan ñaari yoon kontaan bu njëkk bi ci wàllu administration bi ndax suñu fi nekkalee président de la république kilifa gu em ni yow toor kàlla ñëw fi président xam ngeen ni mu xëre ci wàllu diine bu sañoon fu ñu tànte lu mel nii mu teewal boppam waaye mënu ko ba tax na fu ñu ko tàntale ku ko fa nekkal di nga fa teew indi nuyoom indi sargal muy tànk bu jëkk bi ñaareelu tànk bi mu di wàllu mbokk ak xarit ndax léegi bu ñu teewee wax naa la li am suñu diggante ñaari famille te yow yaa ko jóge fàttali yow yaa jëkk a wax kóllëre gi doxoon sa kër maam ak suma kër maam ca tiwaawoon ma dolli la ca man itam nii suma doom nijaay mi ngi juddoo ci sa doomu bàjj kon mu mel ni am na lien famille lien de yoo xam ni dox na suñu diggante yokk ci kóllëre démb beneen fànn bi ci des mu di sa njaboot bi nekk fii mu di daayira mustashidini wal mustashidaati yàlla def na xëy na xam nañu ni wala yaakaar nañu ni xamuma leen waaye xam nañu ni xam naa leen ndax mouvement religieux bu day ni ñoom ak impact bi ñu am ci département bi fu ñu nekk autorité administrative ba fa nekk am na leen à lay ma ngay xam la ñuy def ma ngay xam la ñuy yëngatu ma ngay xam itam fa nga xam ne fa la jëm ma di la seedeel nag ni bi ma yàlla indee man ci département bi ba léegi day ça fait deux ans wante gox bu ñu fi nekk suivre naa seeni activité suivre naa itam seeni discours waaye gisuma ca dara lu dul lu yiw lu dul lu dëppoo ak lislaam lu dëppoo ak li nga xam ne bi la moom nga leen di sant kon loolu jaadu ñu mu seedeel la ko wax la ni ñoom ñu nekk fii di say taalibe ci yiw lañu leen xam ci liggéey lañ leen xam ci discrétion lañ leen xam ci efficacité lañ leen xam wax naa la léegi nii sa gars yi day sëriñ bi ay artiste lañu te lii wane nañu ay artiste lañu il n'est pas donné à tout il n'est pas donné à tout le monde de faire donc ñi ko def am nañu foi ci li ñu def am nañu discipline ci li ñuy def am nañu ngëm ci li nga xam ne bile moom la ñuy def kon boobu seede itam dinaa ko ni ci suma diggante ak ñi nga xam ne bile ñoo di daayira mustachidin wala mustachidaat mooy lu góor ñi nag ak ñu jigéen ñi ndaxte autant ñu war a suivre ñu góor ñi autant ñu war a suivre ñu jigéen ñi te suñu dégloo léegi discours sa représentant bi doon introduire yaakaar naa ni li mu wax c'est édifiant ndax ay nit boo leen dee jiite di leen yar di leen jàngal boo fa nekkul rek ku ne ci ñoom war na la mën a remplacer te su ma dégloo discours sa représentant bi léegi wóor na ma ni soo amoon ngant dem ni ko demal def conférence bi la wax ak li ngay wax du wute ndax ci yow lay tibbe yow ci sëñ Cheikh lay tibbe yéen kon ngeen bokk source d'inspiration te xam nañu source d'inspiration boobu tabaraka wa taala wax dëgg yàlla c'est une source intarissable yaakaar naa ni fii ci Sénégal bu ñu dee wax source d'inspiration intarissable dans tous les domaines parce que yàlla def na may am chance di deglu serigne cheikh ci ay conférence am wala ay waxtaanam waaye léeg damay dem ba yag damay xawa a mané serigne ne sëriñ bi fu mu xamee lii parce que serigne bu doy ni mom nga xamné bu do da koy xaar rek ci mune yalla néna yonent bi néna na sëñ Asmalik nee Babakar sëñ soo demee ba mu lay wax ay nit di la wax ay ëngal di la wax yeneen auto yoo xam ne xëy na ñun ñuy liir livre sax am na ci yoo xam ne jotuñu ko liir wala boog xëy na d'une manière superficielle lañ koy liir da ngay xaw a jaaxle ci moom waaye nag loolu moom mbiru yàlla la kon sëriñ bi maa ngi lay dalal jàmm di la delloo nuyoo président de la république de la feddali Colorem, sa diggante ak la ni président de la république de mon exclusivité ci affaire religion pour nous, c'est le président de tous les Sénégalais et tous les Sénégalais doivent se reconnaître en lui Quoi xam ne nag yow say taalibe ku ci mouvement lu mu amoon ci yow moo ko xañ boppam lu mu amoon ci yow rek moo ko xañ boppam à partir du moment où il se réclame de vous fu mu yemale boppam si yow ci recherche savoir ak njëriñ moo ko xañ boppam président de la république tam la même chose c'est le président de tous les sénégalais nous devons tous nous référer à lui et nous considérer que c'est le président de nous tous kon loolu moo di credo bi nga xam ne bi leen moom le président

je pense que c'est essentiel ndax yéen kilifa diine yi ak kilifa administration su fekkee ni bilee comme ni nga ko waxee léegi ci saal ba am na ci ñun ko amul xel wuti moromam c'est la catastrophe su fekkee ni kilifa diine bi dafay dem ci kilifa administration te yóbbu fa xel c'est la catastrophe bu fekkee ni kilifa administration bi dafay recevoir kilifa diine bi te amul xel wala tey c'est la catastrophe kon nak suñu yalla dimbalé ba su ngeen di def conférence ñu mëna a tew suñu soxla njabot bi mëna jaar ci yeen ba utiliser len à bon escient té bantu du dam ñu ni alhamdullilah rabbil alamin sëriñ bi ma ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di ñaan yalla li nga xamni bi leen moom wara war a ak sa njabot yalla nako ñepp déglu ci xel te jariñoo ko ma lay ñaan nga ñaanal suñu réew ndax xam nañu ni soo ñaanee yàlla mën na nangu nga ñaan réew mi yàlla def fi jàmm yàlla def fi sutura yàlla def fi barke nawet bi nga xam ne bi lee moom la ñu jublu ci la ñu nekk sax yal na ko yàlla def nawetu barkeelu lépp loo xam ne ji nañ ko fi mu nangu te bu ñoree ñu muurloo ko ma lay yëgal itam ni suñu imaam raati bu dëkk bi mi ngi fi alaaji Moussa Ndaw moom laa doon nuyoon léegi kon mel na ni dëkk bi autorité administrative autorité municipale autorité religieuse ak kilifa yépp ñëw nañu wuy si la te yaakaar naa ni vous le méritez bien asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في ذلك الكتاب لا ريب جاءت شهادة القرآن للقرآن ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وما دام القران يهدي للتي هي اقوم فهذا يشير على ان القران احوج الى من يعلم تاويله وما يعلم تاويله الا الله ما جعل هاتين الايتين يجذبان انتباه الراسخين بالعلم فمره جاءنا القران بكلمه النفس وكانها فانيه كل نفس ذائقه الموت ومرة جاءنا القرآن بكلمة النفس وكأنها باقية اليوم تجزى اليوم تجزى كل نفس ما كسبت أهي فانية أم هي باقية فالخطيئه الادميه الاولى فتحت باب المعارضه على مصراعيه فبدت العداوه والبغداء والبغضاء وكانها تسيطر على حياه الافراد وعلى حياة الجماعات بأشكال مختلفة اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكي لا تبقى العداوة والبغضاء معركة دائمة جاءت سنة الله كيما تكيف الفطرة الإنسانية وتجعلها رشيدة وبدورها يعني بدور هذه الفطرة أن تتصرف على طبيعة الإنسان فتأخذ من الجثمانيات ما تسوي بها سوءات الروحانيات فالله خلق العين ومعه نعمه البصر لكنه مره اخرى خلق داء الرماد خلق الانف وخلق معه الزكام وخلق الاذن وخلق معه مرض السم خلق اللسان وخلق معه مرض البكم وخلق الاسنان وخلق سوس الاسنان وخلق الحلق وخلق التهاب الحلق وخلق البطن وجهاز الهضم وخلق داء الامعاء وخلق القلب والرئتين وخلق نوبة القلب وسرطان الرئتين وخلق الرأس وخلق صداع الرأس وخلق اليدين والرجلين وخلق العرج وامام كل هذا ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وامام هذه الاخيره تاتي تلك الايه التي خاطب بها ابراهيم عليه السلام الرب رب الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني وعينك والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين واذا مرضت فهو يشفيني يعطينا صوره في الاختلافات دون الاعتراضات بين ما يسمى بالطب وما يسمى بالشفاء فليس المريض باقرب للموت من الطبيب الذي يعالجه xam nga lu tax wa tadri nafsun ماذا تكسب غدا ومعنى قوله عز وجل انه عليم خبير يعني عليم بما في النفوس والضمائر وخبير بما تعملون وما لا تعملون ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ما جعل موقف العباد في الشر يختلف باختلاف النتائج فالشر اللازم غير الشر المتعدي فالاول وقائي والثاني علاجي فالشر اللازم يحمل في طياته بشائر الخير وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين خير يدركه القلب ويبصره العين وتسمعه اذن واعيه ان الشر المتعدي فيدخل تحت اطار الجبر والقهر وهما من صفات الله المقدسه قل هو الله فوق عباده ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ويمكن معرفه اولئك الفرق من الناس بالنتائج التي دائما نجدها تحت الصفر الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون فكم الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اكبنا وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى ما يصدق ان كل طلب لا بد له من عرض يقابله لابد لكل طلب من عرض يقابله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فموسى المخاطب بهذه الكلمات هو الكليم وما أحوج الكليم إلى إحلال عقدة في لسانه وأما غير الكليم فأول ما يحتاج هو لسان صدق واجعل لي لسان صدق في الآخرين لذلك تحتاج الابتهالات إلى مغفرة من الله قبل خطابها واغفر لأبي إنه كان من الضالين رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وهذا مفهوم ذلك الدعاء الذي نادى به ابراهيم والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ما جعل المخلصين الخطيرين ينذرون دائما للرحمن صوما اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فطلب الحياه قد ياتي من طريق غير طريقها وكثير الذين ياتون بيوت الله من ظهورها فتبقى القرى والمدن من ذلك وكانها خاويه على عروشها او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ah eh, tabaarakallahu yiw du doy comme ba nit di dund ba léegi guddeeg bëccëg yi ngi ñëw te doyagul kon yiw du doy nag yàlla nañ ko yàlla defal ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp

en dehors ci fonction bi en préfet du département wax na leen ci de famille waa kër góor ma Massamba Sall la maa ngi koy nettali léegi wax la boroom xam-xam honnêteté la feese ma serigne Cheikh ci fan Je passé muy waxtan ak man ni ma musaf boo ce que je mam Masamba Sall la fa nekkoon ci nit mo upp fukki ci Babacar et pourtant bo duggé keur serigne Babacar di nga dégg je et dégg ciow ordre ak discipline ma di Je netali ni ko on était intellectuel je lim wax la parce que mbay sal suis bi denc soxna daba mbay moy nijaayam motax mu sama doomu nijaay sa domou jur te moy soxna daba kon ci famille la ah, ñu nuyu itam ay collaborateur am mais d'abord nuyu le maire de la commune ak adjoint yi mu àndal ak waa municipalité yi koy jàppale yépp fa tabarakallahu Maodo wax na leen li ñu daj ci yëf yi ak jàppale bi et amoon na sax xëy na ngant waaye def na effort faf ñëw fa tabarakallahu ñu ngi koo sant di sant ñi leen di jàppale di sant itam le commandant de brigade yónnee woon na démb ca Medina Kébé ñu fa ñëw waaye tey ànd na ak ñëpp mu ñëwal boppam fa tabarakallahu muy commandant jara ñu ngi ko nuyu te di ko sant moom itam ci taxawu gi muy taxawu ci xew-xew yi fa tabarakallahu ñu ngi nuyu itam ilimaani dëkk bi

dana fa wax lu ñu mën dégg te boobu rek moo am solo fexe ba koo ni moom laa fi nekkal rek bu ñu la xoolee gis loolu ci niveau yépp fa tabaarakallahu ñu ngi nuyu waa dëkk bi yépp rawatina kilifa diine yi nga xam ni yagsi nañu fii te Maodo lim na leen sëriñ Modou Mbacke bu serigne mustapha bashir tabaaraka allahu mu ngi ci gannaaw ak taxawayam ak jappelem ci njabot yi diko sante diko jotali tam sante njabot yi di nuyu itam njabot yi nek ci gannaawam yépp fa tabaaraka allahu mu melni ni itam xaw naa sax sànq yi limaan ji ndax préfet daf ma nuyoo léeg moom ni man ndaw la ma ne <laughs> ndaw Kounda moom bu ñëwee rek affaire am waaw ah, isaan eh, ñoom ñëpp sama kal lañ sàll sàll yéeg ndaw ndaw yi moo tax mag ñi jàmbaar lañ waaw ah, kal rek doy na lu ne waaw ah, ndax mooy tooñante ku ne te du aay waaw mënoon nañ ci jaar rek la ci des yëpp waaw fa tabarakallahu bu ko defee rek ci wàllu sunu famille ah, ba jën baa ngi toog soxna mul xëyr dëgg yàlla mënoon na rekk sax yable démb mu doy mu jóg ñëw mënoon na bu boobu jeexee mu ñaan ngant te yépp rafet waaye mu fanaan fekkewaat bi ànd ak soxna Xadija di wëllëreem di ganam fa tabarakallahu soxna Diall Mbaye ñëwoon na waaye dafa amoon il paraît contrat boo xam nit daf ci waroon jublu moo tax démb mu ñaan ngant pour ñu yeewi ko mu dem fa tabarakallahu ci nijaay yaa ngi fi toog Pape Souley kan ak Moustapha Dem ak rek yi nekk ci seen gannaaw tante yeeg yu mpaañ yeeg yëpp tabarkalla soxna Ndey Maram mu ngi toog حكاية ملك يبطم سعنهم ملو سعن النفيكا تبارك الله ويو يبتم يدوغل كتشي كادرو يوم سرين حبيب اك مموتو منصور اك باب سيسي توغل لنفي تبارك الله مجد داري يانجي في topp ci gannaaw bàyyu dayire yi góor gi amet si saar boole wàllu famille ak wàllu tarbiya góor gi Momar Thiaw nekk ci wetam ak bàyyi yu baax yi di ko jàppale bàyyi Ibra di sunu yilimaani jàkk ca Medina Kebe mu ngi toog fa tabaarakallaahu ñu ko nuyu ak wa dekk ba mu joge fa tabarakallahu ak bepp bayu daire wala yaayu daire bu tew ñu ngi lay sante di sante responsable yep ci niveau comité permanent bi ñom serigne ñom maxtaar ak sen rak yi len di jappelé wa tabarakallahu dem ba ci superviseur yi Maodo nekkal len fi tay ñu jappelé ko mu rafet ak ay collaborateur am ci niveau axe bi nuyu itam waa cellule féminine soxna Lalla mu ngi ànd ak ñi ko jàppale ñoom soxna mboose ñoom soxna susi ñi mu àndal ak tabarakallahu ñoom soxna xadi kebe ak soxna ndey mbay tabarakallahu ak seen yaayu bopp yi ñoom maman ko léeg ñi ci des ñëpp kon nag tabarakallahu ñi ñoo am ñëpp ñu ngi fi encadreur yi kenn desul ñëpp ñu ngi fi ñu ngi saluer itam sunu ay collaborateur ci wàllu presse euh, wax nañu ni énergie FM ñu am yitte ci xew-xew yi lañu rawatina sunu mbokk bopp Mansour Njaay tabarkalla bu Lamine Donde ñëwee dina ñëw bu lamin Donde ñëwul dina ñëw nekk moustarchid pur et waaw waaw tabaarakallahu kon ñu ngi koo sant di sant it Mor waaw ndax lu ne ak ko moom lu ne ak ko moom waxlud alayhim dafa am boroom waaw du ko jóg rek dugg ca wa tabarakallahu ñu ngi koo sant sant itam bokk yi faral di jàppalanteeg ñoom ci liggéey yi waa euh, Sud FM ak waa Walf waa Sept FM ak yëpp ku ci nekk ci journaux yépp ñu ngi leen di sant tabarakallahu di sante sunu mbokku d'affaires yi commerçants yi yépp ci nek façon ba nga mën participer def nga ko di sante nag sunuy limaan ah sa Samba waaye sant it mu bokkal ci cadre orientation islamique ñom khalifa ak ñëpp di leen jàppale xam mom waxtan waxtaan yi xam nit mën na sax ni dana bare waaye ku seet ni ñaata radio mo am léegi ci Sénégal ñaata FM mo am FM bu nekk ñaata émission mo ci passé par jour moo xam ci walu information moo xam information langue nationale la wala ci langue française wala ci langue anglaise bismillah bismillah mm-hmm. na ngeen yal na yàlla nangu incha allah jërëjëf jërëjëf ndeysaan waaw moo ñëw noonu hmm? ndeysaan ah tabarkalla ñu wax ne El Hadj Babacar Gaye tabarkalla ñu ngi ko nuyu te di ko remercier te di yëg collaboration mag njaboot yi ak ñi mu àndal tabarkalla mu mel ni boo seetloo ci rajo yi. ku ci ne yaa ngay wax la nga xam parce que amul kenn ku nekk ca antenne rajo te jàppoo ni yaa ngi wax la nga xam doonte nit ñi mën nañ la juger ni yaa ngi wax loo xamul ku nekk ak sa droit kiy wax ak droit am kiy déglu ak droit am donc c'est l'autocritique bu ko defee kenn ku nekk la ngay livrer comme message da nga jàpp ni am na lu mu mën a faj tax am na ñu nga xam ni seen waxtaan duñ ko teg ci contrainte looloo tax nekk journaliste grave. ndax koo xam ni boo saful waxit ñu wax loola et il y a des moments où rien rien ne réussit l'autorité mieux que le silence te boo bëggee wax di nga wax boo bëggul wax di nga wax contrainte la l'essentiel mooy comme ni ñu ko waxee démb l'intention vaut l'action nit ki li ci ëpp buñ ko àttee ci yéeneem la ca des mën na bañ a garaaw mu mel ni nag ci lu ñu seetlu bu la keneen seedalee mu woyof ci nit ñi waaye boo seedalee sa bopp nag mu diis waaye li ñu seetlu mooy alquran dafa seedeel boppam القران موي واخ غاي جانغ سي تيري بي مي القران بي واخ مونا لان ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى téere bi nga di ko jàng muy seedeel boo ko déggee noonu mu diis waaye boo ko réinterprété ci ni ki bind wax te bind nit moo seede mu simple sunu borom nag moo wax ci alquran ni inna hada alquran yahdi nee lo compétent compétent compétent lo gis gis gis gis lo men, men, men men bo jangé alquran yëg ni dese nga kon nag jàng alquran bi di yëg ni dese nga du firimi Traduire le Coran, c'est très facile. Traduire le Coran en tant que texte, c'est facile. Mais traduire le Coran en tant que message divin, ça c'est autre chose. moo tax boobu baatu tawil mooy ñëw te nag la yaalamu tawilahu illa loolay tax boo bëggee jariñu alquran teg ko ci texte da daanu ci kam je pense bien que nous rejoindre de seen Gorgidan toujours wax la loi coranique n'est loi que quand il y a des hommes capables d'en faire un ferment, mais un ferment purement du progrès. Le tax lili ni ñi la rasixuuna fil ilm kenn du ko firee ñi am xam-xam parce que ñi am xam-xam bare nañ mais ñi am seetlu ci xam-xam barewuñu li tax ñi am seetlu di wattu mooy yàlla dafay tudd benn baat ci ñaari barab te nek ñaari barab yu contradictoire te nan la baat di servir ci ñaari contexte yu contradictoire kon baat ba du fa ci barab bi mais message bi leneen la ñi jàng alquran gis nañ baatu an nafs yàlla tudd ko ci ñaari contexte contexte bu jëkk bi dafay wane ni ci contexte buy jeex la waaye ci beneen contexte bi dafay wone ni contexte bu dul jeex la te muy benn baat bi baat bu jëkk bi muy kullu nafsin dhaaiqatul mawt mu mel ni ko nafs dafay jeex mi tuddaat ci beneen contexte al yawma tujza kullu nafsin ma kasabat maanaam bu dee jeexee barzax jeex ba ëllëg ñëpp taxaw ci sunu kanamu borom yàlla ni keroog bakkan bu ne danaa génne sa dossier sa casier judiciaire waa léegi ban la ci bakkan bi jeex fële boobu la ولا بكن بي نيو في ني كوي جوخات كازي جوديسيير بان لا تي مو ملني بالي فاني لا في باقي لا كونتراديكسيون بوبو ديمارشي ديالكتيك بوبو فك ميساج بي كو انتريسي دو بات بي كل نفس بوكو فيري بكن نك دانو كل نفس يعني كل حي كل حي لا شك يوما من الايام ذائقه الموت ku nangoo séddu ci dund bay boo nga defaale ci sa xel ni ku dund di nga dee bés mu tax foofu nafs du firi bakkan aji dund june bés da dee kii c'est simple kon ko foofu dund la comme xas nga tudd dund foog dee ñëw contexte am la waaye al yawma tujza kullu nafsin kooku beneen contexte la moom it ku ko firee bakkan doo dem ndax foofa bakkan amu fa al yawma tujza kullu nafsin yaani kullu abdin ndax yowmal qiyam bu ñu ñëwee sëriñ amu fa yonent amu fa préfet amu fa président amu fa marabu amu fa muqaddam amu fa kenn amu fa in kullun illa ati rahmana abdan yàlla neene yéen ñeppay ay yem keroog jaam rek ngeen di doon ku ne nak sa casier judiciaire mo lay yóbbu fa nga jëm wallaay ndeysaan wax na dëgg nee na yàlla na vierge mais mënul vierge mënul vierge fii la ñu mu vierge mais fële foog mu indi dara li muy indi am solo parce que li ñu lay jox ci li mu indi lañ koy aj moo tax foofu baatu kull kullu nafsin foofu tujza kullu nafsin yaani kullu abdin jaam bu ne nag keroog loo fa am rek yaa ko fa indi looluy tax xamulu ni lu péché dadam coup d'envoi la loolu la nit ñi waroon xam le péché d'Adam al xatiatu al adamiyatu al ula coup d'envoi